Modou Lo lay waxal battu par Lac de Guiers qui est de la même génération que Modou Lo terrassé par Sa Thiès donc Siteu ne pouvait pas affronter Modou mais je ne sais pas ce qui l'a motivé parce que le monde de la lutte est en train de parler de combine et de cousinage waaw ban ban numéro la l'observateur la ah, bu bu tey la rek waaw bu tey la ah, nee na combine ak cousinage ñu ngi ko siy wax xamee ko xam xam ne yàgg na si sport moo fi ah. nekkoon directeur technique tey bu l'équipe combat rek rek bi passé rek gars yi loolu lañ doon wax yor na fi ay ah. ñoom combat rek rek bi passé rek gars yi loolu lañ doon wax la ñoom mook franc moo bombardier ne lañ ko fil la ah. Bougar poursuit <laughs> xaw a gars yow xamee moom ku ko xam xam ne yàgg na si sport nekkoon na fi directeur technique tey pour la région de Dakar yoroon nekkoon na fi ay agent wu tafatin yoroon leen ak yu demee noonu te yàgg na si sport bi gis-gisam la wax certes nag li mu ko waxee rek li mu wax aussi xëy na loolu nit mënta dindi rek parce que tey si bu si dañuy xool côté performance mm-hmm. xëy na wax ne parce que Siteu su fekkee ne tey Lac de Guiers dafa am ndam ci kawam certes comme décision arbitre tamit dañuy naan defet la Sa Thiès am ndam ci kawam guy am ndam ci kawam tey sportivement yenn sportif yi duñu d'accord que ne mm-hmm. ay performance am tey war na mën tax mu bëri sa waay mais mm-hmm. xëy comme kañ

neex a daan ci loo gis. parce que Sénégal yëpp dañ ne woon ne Modou Lo Tapha Tine mooy combat bi jaaru mooy combat bi nga xamante ni c'était le combat qui s'imposait. Mhm. Modou Lo waxoon ne dafa xawoon a sonn dafa bëggoon a reposer noppalu. Mhm. wax na ko si ay waxam ne ne Tapha Tine dafa yàkkamte. waaw Tapha Tine aussi xëy na ne pouvait avec certitude kenn lay pare pare pour bëre moo tax mu dem bëre ak Balla Gaye 2 mhm. waaye nee na euh, sur daal. waaw moo gën a neex a bëre moo gën a neex daan parce que jàpp na ne. xëy na mbër la boo xamante ni tey njool la peut-être bon argumenté na daal li nga xamante ni tey. Hmm. moom mooy ay propos waaye nag Tapha Tine ku ne xam ne jamono ji sax dafa nekk ci yu wóor. waaw débale te Modou Lo na Tapha Tine moo gën a hmm. neex daan. Hmm. waaw loolu c' est est pas la première fois nit mbër wax ko Tapha Tine. Balla Gaye 2 en ah, waxoon na la même chose. tu es le plus nul des VIP. jour lamb ji gis na nu mu demee. Modou Lo tamit balaa mu koy wax Serigne Ndiaye. kan moo ko fi invité woon. Mm. Ah, euh, matinal des sports. Mm, Serigne Ndiaye ah, waaw yaa ko invité woon. Mm. même chose la wax. boobu Modou sax prononcé wul. mu ne Modou dafa aay ci kii mu ne Tapha moo gën a neex a daan que mbëri champion mm-hmm. Mm-hmm. donc Modou Lo bu ko waxee donc conviction bi ma am Modou par la force dina bëri ak Tapha man dama gëm ni Modou ñaari adversaire ñoo nag ci xalaatam ci xelam Sa Thiès la ak Tapha gëm naa ni sax. bu tafaatin bëri bu dee tafaatin dafa daan Balla Modou loo dina ko jël bu ko jël dina jël Sa Thiès parce loo Modou Lo yàlla bu mu daan Balla voilà yàlla bu hmm. donc euh, am nga si la droit hmm. ay projection la hmm. te gëm naa ne la xam lan moo war a loolu moo indi loolu coow li donc gis nga amateurs yi ak acteur lamb parfois dañuy taxawal komba parce que fu mu toll dañ ko sësloo ci miir fu mu toll mënatul bàyyi moom du bàyyi carrière am te bëriwul tafaati mhm. parce que bu ko bàyyee dañuy naan guur dina ba pare dañuy naan daf ko ragal léegi nit ko mu nit ku mel ni Modou Lo nga xamante nitu jom la dina jël tafaati na mhm. tafaati xam ni tôt ou tard dina bëri ak Modou Lo amul franc te Modou Lo nee na gën a neex a daan yow ànd nga si est amul fu ko teg ah est-ce que amul fu mu ko teg yow nag noo ko yow loo ko gisee tafaati Modou Lo tey tafaat ndaanaan la tafaat hmm. ah, neex na non instant moom xaw na naqaree daan quoi. na naqaree daan. waaw xam naa rek Mourou nag am na fi nga ko teg quoi Mourou am waxuloo. mu waxee noonu waxee noonu. parce que ku nekk ak sa visage quoi. Hmm. waaw. Euh, euh, Boy Niang 2. Hmm. neex a daan. Modou Lo lu mu wax dëgg la. Modou Lo lu mu wax dëgg mais yow gaañ yow fi nga teg Modou Lo kawe de. ah Modou Lo daa def lu ñu gis. Ah. def lu ñu gis kay. da ah. nga wax dëgg la waaw. c'est que man sport damay wax sport man ki deful dara mënu ma dara mais ki def dara lu mu wax dama koy gëm. kon Siteu xanaa amul xanaa Siteu amul sens sens si combat boobu. non dafa bëri ak ak ak ak kii. lan ak lan dëgër wala fa ngar mi ak jàmbaar. waaw moo tax moom bunt bu mu fëgg war nañ ko mën a ubbi. waaw gis nga sport amul diw moo daan diw diw moo daan diw amul ci sport. amul ci sport waaw sport dafa am ñoo xamante ni dañoo mën a bërante seen biir. Uh-huh. am ñoo xamante ni seen bëre déggoo ci seen biir. Uh-huh. loolu dafa am si làmb. dëgg la am koo xamante ni yow da ngay daan kii. waaw ñëw si kii ki daan kii ñëw daan. waaw léegi Modou Lo ne Tapha Tine gën a neex a daan ànd nga si. waaw non non Modou Lo bu waxee loolu am na fu ko teg am na fu ko teg am na fu mu ko teg. Hmm. Modou Lo Balla soo ko laajoon tey danaan la Modou moo gën neex daal. Hmm. waaw noonu la demee. noonu la demee man Modou Lo bi muy bëreeg Eumeu Sène xamal naa man xam naa ni Modou Lo. Hmm. moo Eumeu Sène làmb ji mën na demee ñu ko nit ñi foogewul. parce que Eumeu la joxoon foogee. waaw mais dafa am làmb yu bëri yu méngoo ak yu déggoo. loolu dafa am ci biir bëri. jërëjëf waaw ngay ñëw si école bi nekk am koo xamante ni bu demee arène du daal kenn te jërëjëf Boña jërëjëf euh, dembale donc loolu lañ leen andiloon ci revue de presse 100 pour bi sans plus tarder dañuy jànd ak sunu invité d'honneur bi Ah, muy Boy Niang 2 Boy Niang 2 def vingt ans de de carrière si vingt ans de carrière bi mu am si vingt victoires sept défaites ak benn nul ah, Boy Niang 2 toog ñu koy wax Maguette Seck daan na Kewel daan na Nokia daan na Ndongolo daan na Boga daan na Ahmed Bombardier daan na Guillaume Wali Sarr daan na Jëf Jël daan na Gaynde Dembale kii premier combat moom ak Gaynde la dinañ si ñëwaat Gaynde mel sa copain mu ngi Italie Gaynde ñu ngi lay nuyu bu bëree bëri donc ah mu bëre daan Saxombol daan Ñabali Junior daan ki nga xam ne mooy doomu Jalaaw daan Bàcc Seeraas ndem si yàlla Bàcc Seeraas war a ah daan Zal Doole daan Kamal Junior daan Nokia daan Amadou Camara kooku moom mooy la grand champion boo Niang 2 gars may leen ma sama booy loxo. vraiment palmarès bi ku ko def waroo toog fii dembale di jafe-jafe am komba di toog ay at du am combat man léegi damay toog sax ne promoteur yi lan la ñu bëgg parce que booy ut njàmbaar moo ngi si kii booy ut guerrier moo ngi si kii ah. kii mooy mbëru amateur yi kii moo saf xorom amateur yi kii mooy neexal làmb kii mooy booy Niang 2 man buy bëri damay kontaan mm-hmm. si ay face to face am dina la jox respect mais biir géew mm-hmm. non beneen booy Niang 2 nga gis champion ngi nii kon ku am vingt ah. victoire tey ah. làmb ji mbër yi fi toog si vingt victoire bëriwul Mm-hmm. boo wis am sept sept combat rek la ñuy tudd. la ñuy nekk tey ñu yóbbu yóbbu ci kaw kii am vingt victoire mu. Mm-hmm. pour mu bëri sax problème la. tey moo ngi ni combat ak Mbagnick Kaïré taxaw na mais amagul sax dat mm-hmm. ñoom góorandoo ñoo ko tëgg. Demba la nga wax ci champion bi nga xam ne tey moom la ñu invité. yàgg doomu Jalaaw match ni la woon. Ah, donc di ko jaajëfal di ko féliciter. parce que lii signe d'endurance la. parce que 2004 la ñëw si làmb. 2004 boobu man mii. fin 2004 man mii nii sa duggaguma làmb. Mhm. donc da nga démarré ndoo. yow yaa jiitu sax Modou ci làmb. Mhm. non Modou ñoo bëree ndoo rek. arène Mbapat. arène ñoo bëree ndoo ñoo moom 2005 la commencé carrière am. man deux man Balla Gaye moo bëree début de moo Balla Gaye moo njëkk a bëree arène si ñu si ñu si ñun. si ñun waaw. kon kon moo ubbi 2004. waaw kon 2004. moo moo bëre premier combat moo njëkk a bëre si ñun. lees lees moo njëkk a bëre lees moo njëkk a bëre après la Gaye toog. waaw 2002. laa bëre. lees moo njëkk a bëre seen écurie am ndam. waa xam nga après si ñoom. Balla ak Dame Kandji xaw kii am na ku si bëre Dame Kandji waaw. waaw Balla Gaye moo bi mhm. euh, waaw. di ko féliciter tamit ci endurance. Mhm. te asi mbër la bi nga xamante ni. Euh, ñàkk gabari musul tax mu naan ay protéines mu eh, naan ay ay kii pour néew yi xam nga ay anabolisant mm-hmm. donc euh, di ko jaajëfal di ko encourager di ko mm-hmm. féliciter tamit ci endurance boobu noonu mm-hmm. mais jël nga xale bu sap xale bu saf-sap moom mooy Mbagnick Kaïré ah ñu tuddee ko euh, ko ne am benn surnom bu mu ko jox waaw am na benn surnom bu ñu ko jox ndax nu mu safee est que xam nga ni Mbagnick Kaïré dafa mel ni entre Petit Lo ak rakam Sey Njàmbur mm-hmm. euh, Petit am na bëreegu am na fit bi am na am na gabari bi ñu ne rakam moo ko dàq bëri mm-hmm. mais est-ce que xam nga ni ki nga jël mm-hmm. jàpp nañ ni moom moo dàq jën kayre sa bëri mooy mbañi kayre foofu nga jëlee lan moo tax jël xale bi danga jàpp yaa ko mën moo tax nga jël euh, ki mel ni waa Mbagnickane li tax ma gën ko gën ko gën ko jël. parce que man bëgguma ay détail quoi. fi ma dëkk dafa am ay ay mbër yu fa nekk. Mhm. ay champion maa leen nuyu ay Macha Perala ay ñaabu ndaw ay Papa Boy Djiné mhm. ay Modou. ay Maji Maji Ousseynou Assane mhm. ay Maji Maji. ñu nekk ay mbër quoi ma jiitu leen si làmb. mais làmb day toll moment yoo xamante ni yow mag bi soo jéemul pexe rek coow mën na am. waaw ma leen wan ni di leen wan ni leen làmb. Mhm. nekkul nga bëreeg diw moo tax nga raw diw nekkul nga bëreeg diw moo tax nga raw diw. effectivement waaw làmb moom is am lu ma la géej la mën nga di napp sa morom di napp seen gaal du laalante. Mhm. waaw ma ni man pour pourquoi mun mun ma wàcc bëree xale yi. xale yi ñoom ñoo ëpp kase. Mhm. xale yi ñoom ñooy combat yi nga xamante ni boo si génnee dinañ xam ni kii kat is ma la génn si ay combat yu baax man